إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di julli sëlmal ci ab yonente muhammad salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéewal ci kaw yonent booba ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain comme ni ngeen ko xamee dellu siwaat nañ ci sunu tafsirul quran al azim téere bu màgg bii nga xam ni moom la sunu borom wàcce ci ñi gëm yàlla mu nekk seen dustuur boo xam ni li leen di jariñ fii ci àddina sunu borom da ko cee def waaye la leen di jariñ ci àllaaxira tamit kadalik kenn ci nit ñi du topp téere bi wala aw nit du ñu topp téere bi lu dul dañuy nekk ñu gindeeku du ñu ko bàyyi woon ko gannaaw lu dul dañuy nekk ñu sànku fi dunya wal axira su ko gëm yàlla yégee li dafa yëg ni wax ji gën a wér bi ñu toog di ko waxtaanee loolu mooy téere yàlla bi alquranul karim li gën a jub ci li ñuy topp mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon alquran ci jëmmi boppam mooy li féete kaw loo xam ni ci la jullit bi di balloo ay mbiram yépp comme ni ngeen ko xamee ñu ngi nekkoon ci suratul kahfi sunu borom defaloon na tawfiq ba ñu yegsi woon ci laayay juróom-ñeen fukkeel ak benn kon tey ñu war a tàmbalee ci laayay juróom-ñeen fukkeel ak ñaar sunu boroom di wax ni audu billahi alsamii alalimi min alshaytan arrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafthi thumma atbaca sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا kon laay yooyu mooy nekk sunu bind bi tay bi bi war a mottali qissab dul qarnayn bu ngeen seetloo mbaa ngeen fàttaliku ci sunu bind bi mujj ñu ngi tàmbale woon nettalib waaju baax joo xam ne li gën a dëgër mooy dub yonant waaye nag kaana yasiru ala manhajil anbiya boroom xam-xam yi juyoo nañ ci am nañu ne ab yonent la comme ni ñu juyoo ci luqmaan ndax yonent la am du yonent waaye li gën a wér te gën a dëgër mooy ñoom ñaar ñëpp kenn du ci yonent waaye kenn ku ci nekk ci ñoom nag kaana yasiru ala manhaji al anbiya te it borom bi jox na ko xam-xam ak xereñe goo xam ni ginnaaw nubuwa amut leen loo xam ni gën naa màgg lam leen joxoon bi maanaa bu bu bu si lam leen joxoon jàllee ak nubuwa rek a cay topp ci xeeti xam-xam ak xarala waxoon nañ leen bii passé aslëf ci zul qarnayni comme ni ngeen ko xamee te newoon naa leen yenn guddal yeeg yenn détails yi du ko xaw di jar lépp luñ jàpp ni lii wér na rek incha allah danañ ko indi bu fekkee teewlu nañ ko waaye yi nga xamante ni jàpp nañ ni yii wérut yooyu jërut sax di yàq suñu waxtu xëy na dinañ ci tudd yenn yéen jàpp ni yii de siiw na ba mën a trompé yenn ci ay nit waaye su dul loolu jërul ñu yàq suñu waxtu ca loola ndax li wér li doy nanu ba ñu bañ a sànq suñu waxtu ci li wérut qisab dul qarnayn nag ci qisas yi ci des ci alquran dong la bokk nag lu ci ñëw ci ay xuraafaat ak xuzaabalaat bari na torop te amul benn qissa booy dem ci alquran wala benn saar wooy dem ci alquran lu dul ay nettali yoo xam ni ñenn ñi ahlu siyaar ñoo koy nettali yenn mufassiru ni ñoo koy nettali te yooyu wérut yooyu nag de xam ko sax am na solo ndax li tax ma am solo mooy nit ki du ñàkk muy dégg léeg-léeg léeg-léeg nga dégg nit wala dama dégg nangam dama dégg nangam nga xam ni kon kii laaj xamul ndax li mu dégg wér na wala wérul te ñi nga xam ne moom seenam njàngale amutum seeg bi taxankati guddi lañ doon luñ for rek boole ca matt ma te loolu jàpp naa ni doxut Zul Qarnayni gis ngeen ci tàmbali bindam bi ci bind ba la weesu tawfiq ji ko sunu borom defal ba mu dox ba yegg ca fa jant bay sooyee waaye dox ba yegg fa jant bay fenkee te ñaar yii benn bu ci nekk kéemtaan la goo xam ni dafay toftalu di fekk li mu dugloon ci saar bi rek muy qissatu asxaabul kahfi muy kéemtaan gu mag goo xam ne sunu borom da koo feeñal ci saar bi bu ngeen fàttali ko waxoon naa leen ana yan buumi jokkoo moo jokkale qissat Dul Qarnayni ak qissat Moussa Xadr ndax amaan na ki koy jàng ci téere bi moom dafay foog ni kon lii pare nañ ci acca tëjal boobu nañ ubbi beneen fekk déedéet maanaam biñ paree ci qissat Moussa Xadr dugg ci qissat Dul Qarnayni dafa fekk dafa am ay buumi jokkoo yu dëgër yu leen boole yoo xam ni boo ko xamee yow da nga naan ko ndekete kat xisab Moussa Xadir moom ndekete xisab Zul Qarnayni rek a ci waroon a topp amul leneen lu placé wu foofu loolu nag ci jotug alquran la bokk comme ni ma leen ko junjee ci bind bi weesu sunu borom ni summa ginnaaw ji loolu atbaa mu daal di topp nag sababan sabab yi ko sunu borom jox waxoon naa leen sabab yooyu quwwa ci la at kattan ca la xereñ ca la doole ca la dëkk bu mu romb ak làkk wun mën a làkk dana ko dégg te xam nga loolu kéemtaan gu rëy la dafa mel ni kon da nga naan kon làkk yi nekkoon ci àddina bi yam doon romb yëpp dégg na ko ndax amul dëkk bu mu daan romb lu dut la ñuy làkk day wax ak ñoom ca loola loolu nag kéemtaanu suñu borom gu màgg la ndax doomu aadama dégg ay làkk yu xaw a takku loolu du nekk kéemtaan ndax am na ñun gis ñu koy def waaye nag koo romb wax ak moom loola moom jàpp naa ne ci kéemtaan yi suñu borom defal Dul Qarnayni la bokk kon mu topp sabab yooyu nga xam ne suñu borom jox na ko ko xatta mbete ida balaxa bu mu yegsee ci bayna saddayni ci diggante ñaari montagne ya saddayn ñaari montagne la yoo xam ni borom xam-xam yi ñu ne du montagne rek comme ni nga ko xamee benn montagne ñu mu nii rek taxaw déedéet waaye soo xottee ci wetuk ndeyjoor ba da ngay dem ba sa demukaay jeex montagne bi amul foo foo jàll gàttut ba nga mën koo ci te mënoo koo yéeg kon fatt na wet gii mënoo ko mënoo faa jaar soo dikkee ci wetuk càmmoñ da ngay gis montagne bi dafa tàlli rek dem moom it ba dabi géej wala mu dabi fa jant bay sooyee kon mu ne su koo tëb te it boo ko soxlaa jéggi mënoon damay wiiri mu am aw yoon woo xam ne ak asporof ndool la su dox ci diggante ñaari montagne yi foofu nag borom xam-xam yi wuute nañ ci ñii ni kenn xamul fu mu nekk ñii ni ahankay xam nañ fu mu nekk wax jiñ jàpp ne mooy li gën a dëgër mooy ci Azerbaïdjan ak Armenia yooyu dëkk nag man teewlu ma jamono jii xam nga dëkk yi nan ko doon tuddee ci jamono jooju ak ni ñu koy tuddee jamono ji du bokk ala kulli xaal ahlu siyar ku mel al xaafid ibni kathir day wax ni barab bii barab la bu nu xam te jullit ñi mas na dem ba yegg ca sadd Dul Qarnayn loolu mi ngi tombeeg ci jamono yi alwaafiq billah ci addawla al abbasiya xam ngeen am na al mutawakkil al mu'tasim alwaafiq billah ñooñu ci jamono yi alwaafiq billah mu ne jullit ñi takkoon nañ ab xe xare boo xam ne ñu ngi toppoon ko tey Azerbaïdjan ak Arménie def nañ ñaari at ci àll bi mu ne dem nañ ba gis ak seen bët sabdul qarnayn loolu alxaafis ibnu kathir mi ngi koy wax ala kulli xaal fan la nekk loolu moom amul solo lool li am solo rek mooy montagne moom noonu la kéemtaanee woon nga xam ne aw yoon rek moo dox ci diggante bi suñu borom mu ni wajada dafa fekk min duunihima ci diggante ñaari montagne yi qawman aw nit woo xam ni laa yakaaduuna xaw tuuti kon rek dun man yafqahuna di dégg xawlan ay wax xaw tuuti kon ñoom boo wax ak ñoom doo xam lu ñuy wax borom xam-xam yi ñu ni fi nekkoon dafa sori fi nit ñi dëkk sori waay goo xam ni civilisation bi doomu aadama yore ñoom yorewuñu ko set géeg jëflante géeg nite géeg maanaam ñoom daal dañoo ne ci àll ba comme ay arab rek te xam ngeen loolu day faral di feeñ ci dëkk dëkk dëkk waaye nit nit bu fekkee dafa dëkk foo xam dafa sori nit ñi sori civilisation bi sori yeewuteeg adduna bi sori technologie bi su boobaa da ngay gis ni ak jafoo day ne ci moom xam ngeen xadis sax ñëw na ci loolu yonent yàlla mu ne man bada jafa képp koo xamante ni da ngaa àll ba mu ëpp ëpp ëpp ak yëgadi day nekk ci yow man bada jafa ku àll ba mu ëpp ak yëgadi day nekk ci yow te doo ko yëg loolu nag dundin bi moo koy waral moo tax bu ngeen seetloo sàmmkatub xar ak sàmmkatub nag duñ bokk sàmmkatub xar ak sàmmkatub gileem duñ bokk sàmmkatub gileem foo ko fekk bu ko suñu borom dimbaliwut rek ay yëfeefaan day am ci moom ndax tabia ak gileem nga xam ne dañ koo gileem gu nekk yent yàlla mu ne ab seytaane ngi ànd ak moom fa gileem di yës seytaane fay nekk gileem boo ko séenee ni muy dox di cukkur cukkur yi jëma ca kaw a kawaat ci yooyu dafay def jeexintal ci nit ki boo ko tax xar mi nga xamante ni moom dafa nemmaaral yaru noppi kooku mooy gën a lewet mooy gën a baaxi jikko comme ni ko borom xam-xam yi gëstu ci doomu aadama ak bindinam ak tabia bi muy dund kon mu ni sunu borom mu ni dafa fekk foofu aw nit woo xam ne laa yakaaduna yafqahuuna qawlan xaw tuuti kon bu ñu waxee doo dégg leen wax te yow booy wax ak ñoom duñu xam waaye sunu borom defal na dul qarnay tawfiqi ñoom lu zul qarnay wax ñoom danañ ko dégg waaye ñoom li ñuy ñàkk ñàkk mën a làkk lu set liñ doon wax zul qarnay mi ngi koy dégg moo tax al allaama al cheikh al saadi mu ni lii day wane ci kéemtaan yi nga xam ne sunu borom daf koo defal zul qarnay ni ndax su fekkente ni ñoom dañoo nekkoon ci barab bu ruqe boo xam ne bu ñu waxee kenn du dégg li ñuy wax moom mu ñëw mën a jokkal ak ñoom dégg li ñuy wax ba ñu wax ko seen soxla mu jéem di leen ko fajal la muy wane kon mooy sunu borom jox na ko ci am ndimbal mooy sababan rek aataynaahu min kulli shay'in sababan maanaam loo jàpp ne rek nit dana ko soxla ci jumtukaay yi rek mu ne jox naa ko ci ay man comme ni ngeen ko gisee ci bind bi la weesu qaalu gaa yi ne ko yaa dal qarnayn e yow zul qarnayn inna yajuuja xeet wi ñuy wax yajuuja ak majuuja mufsiduuna fi l ard ñoom de ay yàqkat lañ ci kaw suuf yajuuja ak majuuja nag du comme ni ko nit ñi foogee defe ne benn nit la bu tudd comme ni ko gars yi laajee léeg-léeg nga dégg ku jàpp ne yajuuja benn nit la majuuja de benn nit fekk déeréb demeewut noonu maanaam duñ benn nit aw xeet lañ ñaari xeet lañ dinaa ci ñëw léegi balaa bind bee jeex insha allah kon ñu ne ko yaa dal qarnayni inna yajuuja wa majuuja xeet wi ñuy wax yajuuja ak majuuja ñu ne mufsiduuna fi l ard ñoom dañuy yàq ci kaw suuf si maanaam ñoom la ñuy ñàkk-ñàkk mën a waxit am nañ soxla nag ñu ne ko fa hal najal laka xanaa doo ñëw ñu defal la xarjan ak pay mooy ata ala an tajala pour nga def baynana suñu diggante wa baynakum ak ñoom saddan ab kiiraay baaraas maanaam xeet woo fi nekk ci ginnaawam fa la yajuuj ak majuuj a nekk ñoom nag ay yàqkat lañ yoo xam ni kiimtaani sunu borom lañ comme ni ma ci nar a ñëwee léegi balay bind bi jeex xeet woowu ñoom am nañ ak jaaxle ci yajuuj ak majuuj ñu sàkku ci zul qarnayni ndax gis nañ benn zul qarnayni am na doole am na mbooloo am na kiimtaan am na xam-xam te it ku yéwén la ci li muy def nag loolu lépp nag dafay feeñ ndax xam ngeen ni salaaxiya maanaam mbaax dafay feeñ ci nit la chaque nit mën nga koo xam te fekk miinoo ko sax waaye xam ni kii ku baax la parce que mandarga yooyu dafay feeñ ci biti comme ni ko yonent bi jàngale alayhi salatu wasalaam te la chaque ni salaahu zahir wa unwaanul baatin ci li ëpp ci liy am nag mooy mbaaxu biti mandarga la muy wane la nekk ca biir waaye mbonu biti it mandarga la muy wane la nekk ca biir donte nag du qaayida boo xamante ni moom la ñuy sukkandiku bis bu ne léeg mu njuuy ko comme ni ko niñ ko xamee ñu ni ko ala an tajaala pour nga def baynana wa baynakum suñu diggante ñoom saddan benn baaraas loolu lañ bëgg nga defal nu ko ndax baare baare suñu diggante ñoom ndax li tax ñu wax ko baare ko mooy wax naa la ci wetu ndeyjoor gi fees na della ki montagne kon mënuñoo jaaree foofa ci wetu càmmooñ gi fees na della ki montagne mënuñoo kon fii rek lañ mën a jaar kon foofa lañ sàkk Zulqarnayni baale ko su ko defee la ca gannaaw ca la Yaajuuj ak Maajuuj nekk lii ci kanam nag ci ginnaaw baaraas bi foofu la ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbooloo mii di nekk sunu borom mu ni subhanahu wa taala qaal dhul qarnayni tontu mu ni maa makkanni fiihi rabbi li nga xam ne loolu la ma yàlla dénk ci doole ak alal ak i moye xayrun moo ma gënal fuuf li ngeen may dig ci alal ngir ma defal leen li ma leen defal allahu akbar gis nga maanaam saar wi bokk na ci sew-sew yi nga xam ne nekk na ci te man koo jàng te yépp dajaloo ci saar wi mooy day wane maanaam doomu aadama ak lu ko yàlla dénk ci ay mbir lu mu kawe kawe kawe rek maanaam baax dafa war di feeñ ci moom ak yërmande gis nga doomu aadama léeg-léeg da ngay gis mu ñàkk yërmande fekk daa matagut kilifa dëgg waaye boo matee kilifa dëgg dëgg da ngay am yërmande gis nga benn borom xam-xam dafay nettali mu ni soo gisee yàlla subhanahu wa taala yilif nit ñi te yilif duñ leen yilif moom leen parce que dafa ëpp yërmande ci nit ñi ndax borom bi subhanahu wa taala ak ni mu amee doole man ñoo faagaagal te dara da ko ci fekk ba nag mu wàcc ci yërmandeem ba yërmandeem jiitu meram la muy wane mooy kilifa dëgg bala muy mat kilifa mu am yërmande beneen bi ci des mooy yu bare bare da ngay bàyyi muy jàll parce que def ngir yàlla da lay yitteel ndax xam gis ngeen Moussa ci boppam ma doon yedd kële xadar ci naa ko law shita la taxasta alay ajran Moussa daa fàtte ndax Moussa romb na ay jigéen ci teen bi mu ñëw ni leen maa xatbukuma lu ngeen fi def ñu ne ko sunu baay daa màggat te amul doom ju góor ñun ñoo koy jukkil ñun jigéen ñi fa saqaa lahuma te moo ne summa tawalla ila zulli ba mu paree da ko def ngir yàlla dem yoonam te xamu leen kon warta woon a yedd xadar parce que li xadar def ci mbaax Moussa yaa ko ko njëkk a def kon da ngaa fàtte kooku benn la beneen bi boo seetloo xadar ci jëmmi boppam ak waa dëkk bi malgré que liñ koy xañ lépp te ak a jafe mbokk yi sël man xataat jokkal ki la dog loolu ñun moom daanaka kenn mënu ko moom moom bu yow nga wax loolu nga noppalu ki gën a jàmbaare ci ñun gën a rafet ci ay jikko ci ñun mënul sël man xataat gis nga nag léegi xadisa ngoog boo xam ne mbokk yi kenn ku bëgg natt sa ngëm yàlla fu mu toll rek bul laaj kenn jëru sax ngay laaj borom xam-xam demal nga natt sa bopp yow parce que ay chiffres yu leer la yore yoo xam ne ku ne mën nga kaa liir te ku ne mën ngaa meetare sa bopp fan nga toll sël man qataat ku la dagg yow jokk ko sël man qataat daggal ku la dagg rek yow jokk ko wa aatu man xaramak ki la xañ bañ laa jox yow jox ko loolu loolu neexul wallahi neexul ngëm yàlla rek kay tax nit man ko mu ni wa ahsin ila man asaa ilayk ki ñaawal jëm ci yow ba dëkk bi yépp ànd ci ni kii dafa ñaawal jëm ci yow yow rafetalal jëm ci moom te est-ce que xam ngeen ni karwaas gi gën a saf gu ñuy dóorum ponkal te doo ko laal mooy gii gis nga doomu aadama su defee lu ñaaw ñëw ci yow mu wér ko ni mënu la ëppalewu la gënu laa xam te ful lay dog ko comme ni mu la dogee am nga ko nga ne xaaral ma dem seeti ko amul problème da may jaar fula du ma ñëw du ma ñëwati sa kër man ma jaay la fayda ñëw sa kër man parce que xam nga problème mooy bi nga jëlee nit ki ni mooy jëflanteeg yow rek nga xool jëmmam ji mbokk mi ma jàkkaarloo su boobaa rek dootoo mën a jëfati waaye léegi jëflanteetuma ak yow man sama borom laay jëflante parce que moo ma sant maanaam man jamono bi may def xoolatuma la yow li ma xool mooy ki ma sant loolu moo tax ak lu mu metti metti metti metti jamono bi nga koy jëfee day yomb ci yow dinaa ko wax mbokk yi gis ngeen yonent yàlla yusufa alayhi salaam bi mu joteeg mbokkam yi mbir mi jël nañ ko tàbbal ko ca teen ba mbir yi métti na lool ah keroog ba nga xam ne ay mbokkam ñëw nañ kissa ba xew ca Benyamin bañ téye ko au lieu que ñu défendre seen rakk mu dem ñu ne in yasriq faqad saraqa aqun lahu min qabl même bu sàccee magam mosoon naa sàcc ça veut dire que loolu aw saaga la mooy kon de seen yaay xanaa ay sàcc rek lay jur subhanallah xool loolu nga di ko wax buur mu jekko la te xam ne xel kii saaga wi ci moom la jëm si suñu borom mu ni ah fa asarraha yusuf fi nafsi mbir maa ngi dagg xolu yusuf waaye rek fexee ba am maîtrise doomu aadama day maîtrise walam yubdiha lahu feeñalu ko waaye xoolal bis ñëw mu jekku leen ba gars yi ne ko ay naka la anta yusuf mu ne naam ana yusuf man la yusuf gars yi samay mel ni koo xam ni samay galaas guy seey man la yusuf wa hada axi kii sama mbokk la mi ñuy wax benyamin qad manna allahu alayna yàlla moo ñu baaxe ba ñu yegsi fii ne bu dul woon moom duñ fi yegsi innahu man yattaqi wa yasbir ku ragal yàlla te muñ yàlla du sànq jëfi muñ kat allahu akbar ñoom fi ñu taxaw amu ci kenn ku mën a yëngatu ndax gàcca waaye xoolal yusuf pour wan la ne la maanaam nit ki bu baalee ba noppi doo deltuwaat gannaaw di nettali xuloo yusuf mu ne min baadi an nazaga shaytaanu bayna bayna iqwati shaytaanee doxoon sama digganteeg yéen rek gis nga de kon liñ ko def ni mu salteeg ni mu mettee waxal ko lu bon tuumaal ko saaga ko ah waaye teewul rek lépp mu jël ko jiñ ko seytaane pour may leen bunt parce que nit ki boo ko xësee baal da nga koy wax ay wax yu yone ni baal nga ko bi muy sant yàlla xool lu mu wax waqad axrajani min as-sijni maa ngi sant yàlla ndax yàlla ma génn ci kaso bi mu ne am na fu ko yàlla génn fu gën a xóot kaso mooy teen ba te teen ba ñii ma baal ñoo ma fa tàbbal waaye su ma nee maa ngi sant yàlla bi ma génnee ci teen ba rek automatiquement ñoom dañuy am gêne parce que ñoo ko dugaloon ci teen ba Youssouf bàyyi loolu mu ne ginnaaw bi ma sama borom génnee ci teen ba ca ca ca kaso ba su ko defee borom xam-xam yi kon ñun gis ci ni xoolal Youssouf fële moo gën a xóot moo gën a metti waaye bàyyi na ko parce que kat bu ñu demee ba ma wane ne baal naa la ah nii nga fi defoon keroog yooyu jëru ko parce que boo ko xasee wax rek ça veut dire que mooy kon baal ga des na moytul lii di la dal parce que lii baaxul ndax àddina am njàng rek la yam foofu ki ngay waxal bu dul ab dof dana xam ni mosoon da ko fi def daa tollantiku tey gis nga yu mel noonu jikko yii mbokk yi moo tax nit di jàng alquran saa bu nit ki demee buy jàng alquran yii du def jeexintal ci moom dama ni jàngum alquran bi amul njariñ kon gis ngeen dul qarne yi tamit kadalika bi mu ñëwee mu ni maa makkan ni fii rabbi xayr li ma yàlla jox ci ay moyen ki doole moo ma gënal li ngeen may gaaral ci alal parce que doomu aadama bu xamee ni la koy xaar fa suñu borom ci yu lu toll ni ni ni ko suñu yonent bi diggee loola moo koy gënal poñetam àddina bi mu def ko ngir yàlla fa hal naj'al laka xarjan xoolal ku am problème ba seet borom doole ni ko kaay ñu financé la nga defal ñu nangam maa ngi yaakaar ni ñooñe de lu leen zul xarneen ne laajoon ci alal ñu jox ko ko waaye après lu muy jëriñ zul xarneen xam ngeen lu mu koy jëriñ dee ba ko fi loolu la koy jëriñ yarhamukallah dégg ngeen loolu alal jooju bu ñu dajaloon ay milliards jox ko Zulqarnayni pour mu defal barrage bi xam ngeen alal ji lu muy jëriñ Zulqarnayni xanaa dee ba ko fi loolu rek la koy jëriñ comme bu ma dee fi laa koy bàyyi xaaral ma jéem a jëfe loo xam ne su ma dee yóbbaale ko moo tax mu ni maa makkanni fiihi rabbi li ma yàlla dénk xayrun moo gën fuuf te loolu yàgg yàgg na si yàggees na koo wax nag gis ngeen Balqiis cek ak Souleymane atumidduunanii bi maal ah yéen da ngeen naa bëgg a ger fa ma aataani allahu xayrun mimma aataakum li ma yàlla dénk moo gën fuuf fekk gars yi or ak jamaa ak xaalis ak lu ne ñu dajale ay emballage jox ko fekk buur yi dañuy faral defar noonu loolu loolu mooy ger mooy li ngeen di faral dégg seen rajo bi te ngeen xam ko ma xam gis nga waaye buur bu gëm yàlla mel ni comme Souleymane loolu kenn du ko ger xayrum bal antum bi hadiyatikum tafraxuun li ngeen indi ci ci ci cadeau moom ngeen di kontaan ah cadeau bi na delluwaat. dinaa leen betteeg soldaar soo xamante ni du ngeen xam fu ñu tàmbalee du ngeen xam fu ñu yem laa qibala lakum biha kon yu mel noonu ñi gëm yàlla yàgg nañ koo def te it nag saa bu xéewal di kenn nga delloo ko ci borom bi subhanahu wa taala kon mu ni fa a'inuni na ngeen may dimbali bi quwwatin ci kàttan maanaam yor naa doole dëgg la waaye liñ bëgg a liggéeyu tamit bu leen yaakaar ne maanaam as porox ndoll su toll soo xam ne yaatuwaay bi comme jàkka ji kese la de du loolu de déedéet mën naa yaatu ba toll ni seen dëkk bi yoon wi loolu mën naa nekk de maanaam nekkul dafa nekk lu porox ndoll su ndaw soo xamante ni fukki nit sax mënuñoo jàllandoo ni tekkiwut loolu li muy tekki mooy ñaari montagne yi am na yoon rëy wu dox ci diggante bi waaye nag yoon woowu rek la dul kii mën a jaar Yajuuj ak Majuuj mu ni kon fa aayinuuni da ngeen may dimbali bi quwwatin ci kàttan waaye defaatal seetlu ci Qur'an Zulqarnayni mooy dimbali wala ñoom dañ koy dimbali a'inuni bi quwwa kaay leen dimbali ma moom mooy dimbali waa dëkk bi wala waa dëkk bee koy dimbali xulul xulul tawaadu oyof oyof moom moo ñëw pour dimbali waa dëkk bi ba noppi naa ko kaay dimbali ma eh baal ma waaye nga ñëw jàppal ma fii te fekk yow sa miiru kër gi laa lay defar ah baal ma am sa wàll loolu rafetal rek la yow da ngaa xëy sa miir bi daanu ma ñëw di la ko jubbantil aw ma ko ma jottali ma ne eh waaye baal ma waaye kaay yëkkatil ma lii baal amul foofu parce que loolu da ko war waaye gis nga rafetal. gis nga loolu boo ko waxee nit lu mu jàppoon da koy bàyyi parce que waxin dafa am wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu baynahum neel jaam ñi bu ñuy wax nañ wax lu rafet ndax shaytaan day fo ci kàddu yi benn kàddu yi génn rek sa way tol ni mbaxana shaytaan ne ful ko mu tol ni mbaar fekk ci waxin bi la yooyu yëpp nit ñi war nañ cee bàyyi xel kon fa aayinu ni kaay leen dimbali ma bi quwwa ci kàttan ajaal ma def baynakum seen diggante baynakum ak ñoom seen diggante radman barage radma ak sadd benn la maanaam barage boo xam ni kiiraay la goo xam saddan mania maanaam barage boo xamante ni bu tal la bu am sécurité nga xam ni kenn du ko mën a fëq mu leen aatu ni da ngeen may jox zubaral xadiidi mooy daggati lañ maanaam ay brique maanaam tabax bi mu doon tabax ay ay ay xitan la ko def ay daggati brique comme brique yi mool mool mool ngir mën a tabax léegi dañu jël ay weñ yett ko comme forme ay brique di ko def ay ay zubur ay daggit daggit maanaam loolu ngeen may wutal suñ ko andee bu ko defee ni ni maçon bi tegalantee ay birig noonu lay tegalantee weñ yi maanaam parce que miir la boo xam xamante ni mi ngi ko bëggoon defee ci weñ mu ne xatta ida saawa ba mu yemale bayna sodafay ni ci ñaari bopp koñi montagne yi maanaam di tegale weñ yi ba mu yegg ci bopp bële mu seere ko ca muy tegale ay weñ ba mu yegg ci bopp bële mu seele ko ca mooy xatta ida saawa bayna sodafayn qaala mu ne leen qaala nfuqu mu ni taal leen ko ut leen sawara ngeen taal ko xatta ida jaalahu naara bi mu ko taalee ba mu dem ba nekk sawara di birix birix ca kaw nag qaala mu ni aatuni jox leen ma ufriga alayhi ma sutti ci xitran betteex wala aluminium maanaam betteex weñ la jël ak weñ ni mu mel ñu taal ko te weñ gi bu tàngee dafay benn am na ci yoo xam day xaw di ruy di kole woon teg morom ma mu pare wut betteex tamit teg ci muy beneen xeetu weñaat xitr mooy betteex bi mu wutee betteex bi commencé nag di ko di ko suy ci kaw diggante birig yeeg morom ma nga xamante ne léegi bu ruyee rek diggante weñ ak morom ma day kolewu lii laay wax ni ma ni entrepreneur bii moom bu ñëwoon fii dina bari ñu topp ci moom jàng ndax tabax boo xam ni zul qarnayn xam ngeen jamono jooju na mu yàggee ba tey loolu waxuñu sax waxi Muhammad ñëw na fi mbaa Moussa mbaa Isa xam nga moo fi jiitu Moussa moo fi jiitu Isa moo fi jiitu yonent yi ngay xam waaw xoolal tabax boo xam ne lu ay at yi at ay junni at avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi ñëw ila yawmina hada te it nag ila yawmil qiyamati nag ma nga taxaw benn place daanu wut faqut màggatut renouvelé wuñ ko beesal wuñ ko raaxaatuñ ko te ma nga mel nam mel ba léegi loolu ba pare nag defaree ko weñ nag xam nga loolu si maa mënu ko ak xeet yi xew tey moo tax mu ni ufriqa alayhi qitran jox leen ma sotti ci betteex maanaam daal su doon raax miir la boo xamante ni mi ngi koy tabax birigi weñ la mu raaxee ko betteex mu jeex loolu rek nga noppalu suñu borom mu ni famastaau gaa yi mënuñu an yazharuhu ñu tëb ko jéggi parce que miir bi dafa kawe ba toll ni montagne wa mastataau lahu naqba te mënuñu koo fëq tamit parce que weñ la ak betteex allahu akbar léegi dul qarnay ni ñëw na gaa yi sàkk ci moom mu defaral leen li nga xam mooy miir bi nee na maa makkan nii fii garab bi xayr li ma sunu borom dénk ci ay ndimbal moo ma gën moo gën li ngeen ma nar a jox ci alal defaral na leen miir boo xam ne mi ngi ko defaree weñ sadd dul qarnayni borom xam-xam yi ñu ni comme ni ma ko waxee sànq alhamdulilah kese mu ni julli ñu dem nañ ba yegg fa te loolu laa maa ni ah ndax masiixu dajjal ko gën a yéeme te am na saxaaba bu dem ba gis ko xam ngeen tamimun addaari yi xëy na ñëw ni yéen sa salaam man gis naa masiixu dajjal mu ni ko ha mu ni waaw waaw nu mu mel bi ma tamimu daari nettilee ba noppi yonent bi dañu ko kaay kaay yow kaay mu jàpp ci loxo bi yóbbu ko ba ca jàkka ja ne ko yéegal ci minbar bi mu yéeg xam nga loolu jéem na yonent bi mu ni ko waxaa waxaatal li nga ma waxoon ca kër ga léegi tamimu daar yi netti li version bu mel ni bi yonent bi tamit da doon doog a tuub si da doon doog a tuub si ça veut dire que kon ba yonent bi nettali dégg ko woon bi tamimu daar yi nettilee ba yeggal yonent bi ne leen est ce que du lii laa leen doon nettali ñu ne ko ahankay mu ni ci biir dëkk bi tudd na fi ñu tuddee Tiiba ñu ne ko waaw mu jël ba jaaro bi fëgg ko ci minbar bi ni leen fii mooy Tiiba mooy Madina moom lay wax ni masiixu dajjal du fi mën a dugg kon laa maa ne ah nit ki dem ba gis sadd zul qarnayn parce que lalee ko gën a kéemtaane kon mi ngi noonu su ko defee nag zul qarnayn ni def na barrage bi gaa yi ña nga ca gannaaw mbooloo mi ñoom ñu ngi ci kanam qaal zul qarnayn ni mu ni hada lii ngeen gis nag bu ci kenn gis zul qarnayn ni rahmatun min rabbi yërmande sama borom la allahu akbar mbokk yi gis nga alquran dafay yar nit ba moo tax gis nga soo gisee alquran gaaw ci soppi nit lu mel nii la mooy bis bu ne rek ak bind bu bees bi ngay am ci wàllu aqida ak bind bu bees bi ngay am ci wàllu suluk ak bi ngay am ci wàllu yar mbokk yi xoolal miir boo xam ni weñ lañ ko defaree diggante ñaari montagne yoo xam ni ya ju jag ma ju li ñuy bari bari kattan mënuñu koo yéeg mënuñu ko fëq gars yi mësuñoo gis kéemtaanu yàlla gu mel nii suñ pare hii ñun de su xar ne ni kéemta bu ko defee di la wax ay wax di la jay ba nga bëgg fee jaar moo tax yonent yàlla bi daraan teel a freiné nit ñi te nit ku nekk bu la yàlla dénkee ay mbir da ngaa war di freiné nit ñi nag boo gisee tey xaabaaba nga am ci sëriñ seeg ñoom seen loolu la xam nga hi yow kay moom yaay borom kun fa yakun nga xëjandi ko noppi ah loolu ku ko war a jubbanti ko yow yaa fa nekk kuy jubbanti waate di hey moom de moom de ba mu ko ba mu ko ba mu ba mu ko talalee ay loxo mu ñaanal ko ni ko yàlla na yàlla defal la sa barke ci weñ moom de lim am ci oto kenn xamut nu mu toll. kéemtaan yoo xamante ni nit ñi dañ koy jël di ko yeggal fu mu yeggut loola ci ci sëriñ si la parce que ba gars yi toog ba naan yonent bi hey yow de yaay sunub sang yaay doomu sunub sang yaa ñu mag yaa ñu sut yaa ñu yonent bi ne hey bàyyi leen li ngeen di wax ngeen wax yi ngeen doon wax bu leen ma jay comme ni. chrétiens yi doon jaye isa ibnu mariam jaamab yàlla laa doomi jigéen laa joo xam ne da daan ñàkk bay lekk seeli yàpp seel ay seel ngir doya dal boppam sallallahu alayhi wa sallam gis nga jullit noonu la war a mel suñ la waxalee ay mbir yoo xamante ni ay mbaax mbaax la férital nga jàll wallahi yàlla du la àtte ci li dañuy wax abadan yàlla lim lay àtte mooy lim li mu li mu xam ci yow gis nga nit ñi naan diw moo baax ak diw moo nangam hii diw di moom borom xam-xam la yooyu amul solo gis nga yooyu ñoom seeni foog la rek vannukum alladi danantum bi rabbikum da ngeen koo foog rek waaye gis nga yàlla moom alimun bi daati sudur moo tax Abu Bakrin Siddiq boo musaa na ñëw nan yaa Siddiq hadihi al umma yow xaritu yonent bi yaa ànd ak moom fii ndeysaan day bënn bët yiy jooy mu ne allahuma la tuaxidni ma yaqulun yàlla ñii ki ñuy présenté du man loolu lay wax de allahuma la tuaxidni ma yaqulun ñii ki ñuy présenté du man yàlla boo ma jàppee liñ may waxal nag waxfir lii maa la yaalamuun am na yu bon yu ma nëbb yu ñu xamut ñoom moo tax ñuy wax li ñuy wax kon yàlla nag ma ko jéggal mu ne wajaal nii xayran ma yazunnuun ñoom ki ñuy foog daa baax te kooku te man baaxuma kon def ma ma gën ki ñuy foog ñoom loolu la jullit war a wax waaye déedéet ñun moom ñun sax nag danoo sawar sax faf ñuy wax say mbaax hey diw kay moom nangam diw kay loolu dafa bokk ci madaaxilu seytaan mooy bëggu tagg bëgg tagg bëgg daraja gis nga ñu baax ñu nag ñii lañ doon def dañ doon teel a freiné hada rahmatun min rabbi lii sama yërmande borom la Yusuf mi ma doon tudd sànq bi mu dee ba génn ci teen ba génn ca kaso ba wëlbati ku nekk buur ay frère am yu ko mag tàbbal woon ko ca teen ba ñëw toog ci kanamam di ko subooroo ko suxlu ah Yusuf baayam ak yaayam ak mbokk yi ñëpp ñëw di ko sujuutal ba mu ne hada ta'wilu rek te muy xale bu xonk cur. allahu akbar foofu foofu seytaane ak commencé de la man nag lu mu wax rabbi yow sama borom mbir yëpp ci yow laa koy delloo qad aatatani min al mulk nguur gi yaa ma ko jox wa allamtani tawil tawil al ahadith kéemtaane gi ma am ci firi gént yaa ma ko may fatira samawati wal ard doole ji nga am da caa bokk rek dénd gi nga dénd asamaan laal suuf anta waliyi fi dunia wal axira soo may bàyyi may xal anta wali yaay sama féete fi dunia fii ci àddina ma nekk wal axira ak al axira fi ne gis nga nit ñi lii ñuy wax nii man yow suñu borom li ñuy wax nii dara ma ci safu dégluwu ma ko sax xam nga li ma yitteel tawaffani musliman dimbale ma ba su may dee ma dee nekk ku gëm yàlla mbokk yi xoolal lii loolu moo lay wax ni maanaam ña nga xam ne ay ay daraja nubu walan amoon dañ nga delloo yëpp ci yàlla subhanahu wa taala gis nga de hada min fadli rabbi bal xiis ak kursi ba daal di jékki-jékki ñëw ba yegg si simila ak saala rek mu ñëw ci kanamam fëgg dënn ni maay ngand dafa yomb foofu lool mu ni hada min fadli rabbi lii de xam naa sama ngëneeli borom la li yabluwani ashkuru am akfur xam naa sunu borom daf may testé ba xam dinaa sant ak waaye tey mu xam ni maa mën a sant daal di sant yàlla subhanahu wa taala dul qarnayni bi mu defee lii ba noppi gis ni gars yi kenn ku ci nekk mu ngi xujjaarali ba tëkk yéemu mu ne hada lii bu leen ci yéemu rahmatun min rabbi sama yërmandey borom la bu leen ci gis zul qarnay ni mukk yàlla moo may kàttan gi may ma loxo yi may ma xel mi ngeen dimbali ma waaye fa ida jaa saa bu yegsee waadu rabbi sama digga borom ba allahu akbar muy alaxira ja bu alaxira naree ñëw àddina nar a tukki jaalahu dakka sunu borom day bàyyi montagne bi mu moxoñaatoo day bàyyi barrage bi mu montagne oo jaalahu daf koy def dakka mu mo mo mu toj mokkaloo comme falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakka mooy daf koy mokkal wa kaana dafa nekk waadu rabbi sama digg borom bi xaqan di dëgg kon mi ngi junj la yonent bi doon jàngale alayhi salatu wasalaam di waree ne sadd boobu fa lay nekk ba keroog addinay waaj a tukki comme ni ma ko nar a leeralee léegi mu nekk sunu mujjantalu bind yaajuuj ak maajuuj fi mu ne nii ba fii may wax ak yow suba tey gii fi ne xëy nañ fii nga toog ci jàkka ji ngay jàng. fi ne ñoom xëy nañ di xoos aka mar di xoos aka mar kéemtaane yi ay mbindeef lañ yoo xam ne kéemtaane lañ dañuy xoos a xoos a xoos ba nga xamante ni booy xàccub korosé ni till affaire bi di fëq tombeeg jant so ñu ne kaañ wàcc ba suba suñu ñëwaatee suba rek fekk suñu borom baarewaat loola mu mel na mu meloon bis bu àllaaxira nar a tukki nag dañuy ñëw baare xoos ak xoos ba dara desul lu dul fëq rek yàlla yenkee wala ñu ne kaay leen wàcc ba suba insha allah gis ngeen insha allah ji ñëwoon ci saar wi de ñu ne insha allah xoolal ñaar yi ni ñu méngoote yépp ci wenn saar wi la ñëw insha allah gis ngeen ko ca asxaabul kahf ak yonent bi gis ngeen ko ca Muusa ak Xadir ñëwaat na fii muy ñetti yoon te lépp mi ngi ci saar bi benn njàngale xoolal ñun niñ ko niñ ko sàgganale insha allah te benn njàngale boobu répété wu na ci saar bi ñetti yoon bu ñu waxee insha allah bu ñu xëyaatee fañ ko daggoon fa la ñuy fekk nga xam dañuy laal rek mu fëq su ko defee ñu daal di génn ci nit ñi moo tax mu ni fa ida jaa waadu rabbi jaalaw dakka mu ni wa kaana waadu rabbi xaqan sama digg borom dëgg la mu di wa tarak naa sunu borom muy nag dañuy bàyyi baadahum lenn ci ñoom yawma isin bisu keroog yamuuju maanaam ñuy raj-rajloo fii baadin ci ña ca des fii nag borom xam-xam dañ ko firee ñaari firi benn bi mooy jamono bu Yaajuuj ak Maajuuj génnee yamuuju dañuy bari ci kaw suuf bay raj-rajloo te firi moom lu wér la beneen façon mooy allaaxira ju njëb allaaxira te yëpp benn la parce que jamono jooju mooy tombeek allaaxira ñëw rek moo tax ñaar yëpp firi yëpp benn bu ne wér na moo tax ñeneen borom xam-xam ñu ne wa tarak naa dañuy bàyyi baadakum ñenn ci ñoom yow ma isin bisab allaaxira yamuuju fii baadin ñuy raj rajloo ci ñenn ñi wa nufiqa fi suuri suñu borom mu ne ñu daal di wal bëft bi fa jamaanaahum jamaan ñu daal di dajale doomu aadama yëpp nag allaaxira taxaw kon foofu mooy nekk sunu bind xëy na fa la ñuy tàmbalewaat bind bii di ñëw ala kulli xaal ci tënk bu gën a gàtt yajuuj ak majuuj borom xam-xam yi dañ cee juuyoo juuyoo gu bari suñ ko tuddul woon fii defe naa bàyyi woon ko ba suuratul anbiya moo doon tane ndax ñëw na fa ci anam gu gën a yaatu waaye yajuuj ak majuuj borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu bare bare yoo xam ni léeg-léeg sax da ngay xaw ay ree ay reeda lay jàpp mooy mooy nettali alquran yi rek li gën a dëgër mooy yajuuj ak majuuj moom ay mbindeef lañ kon ñun duñu ay jinne duñu ay malaaka ay nit lañ kooku bàyyi ko xel ñaareel mooy yajuuj ak majuuj ci njabootuk baay aadama lañu bokk ci njabootuk nuux lañu bokk comme ni mu ñëwee ci xadis bu ñëw ci musnad nuux am na ñetti doom muy saam ak xaam ak yaafus saam moo jur arab yi xaam moo jur ñi ci des yaafus moo jur ñii nga xam ni ñooy yajuuj ak majuuj ñoom ñoom la ñuy tuddee ak turk li tax ñu di leen tuddee ak turk parce que turiku wara asad zulqarnayn daf leen a baare ñu bàyyi leen ca gannaaw baaraas ba ñu ne turiku wara asad ñu ne kon ñu ñooy ak turk loolu moo tax ñu am tur woowu xëy na fa la turk jóge tey wallahu alam lenn ci borom xam-xam ne dañuy wax benn nit li li tax ma di ko nit li mooy dafa ñëw ci téere bu kéemtaane boo xam ni nit bu ko fekkee day jaaxle nettali bi ma bëgg wax mi ngi saxi saxi sarxab saxi muslim bu Nawawi imam Nawawi moo ko nettali mu ne ñenn ci borom xam-xam yi nee nañ yajuuj ak majuuj dëgg la ay nit lañ waaye ñu nag ñoom ñoo bokk baay te bokkuñu yaay lan mooy ñoo bokk baay te bokkuñu yaay ñu ne Adama dafa tëdd ba guddi mu gént bi mu géntee man yi bu génn ci moom daal di jaxasoog suuf si te la yajuuj ak majuuj sosoo kon ñoo bokk baay waaye bokkuñu yaay wax jooju ku ko mën a weddi ku ko mën a weddi ci yéen yajuuja ak majuuja ñoo bokk baay waaye bokkuñu yaay ndax aadama daa tëdd ba guddi mu gént bi mu géntee man yi génn ci moom laal jaxasoog suuf si loola ca la yàlla bindee yajuuja ak majuuja kon ñoo bokk baay bokkuñu yaay wéru lu ko teree wér li ko teree yéen maanaam waaye mën naa nekk suñu kéemtaani borom it de tontu bi mooy yonent du gént ab yonent du gént loolu loolu rek jeex na bul xool riwaaya ba baa ku ko soloo yooyu yëpp xam-xamu xadis la dalay sonal ab yonent ci boppam ci xam-xamu aqida du gént yenn gàllankoor yi dal nit ki comme lafañ comme comme comme gaana comme lu mu tuddati liñ naan ayuba sax yi da daan dugg ci yaram way génn déedéet yooyu pour nga weddi ko noppalu dafa am xeeti mbir yoo xam ne yàlla du ko teg ab yonent nga noppal sa bopp noppal say mbokk kon boobu wérul te boo demee ci sarxab sahih muslim bu Nawawi da nga ko cay fekk donte ne dafa wax ne ay nit ñoo ko wax mu nettali ko moom mënoon na ko weddi waale ala kullin ya jooja ak ma jooja ci njabootuk aadama lañ bokk yonent bi nee na alayhi salaatu sunu borom dañu aadama génneel ñi war a dem sawara ci sa njaboot aadama ni ko waaw yow sunu borom man ñi war a dem sama njaboot sawara ñooy ñan mu ni ko mille personnes yoo wàññi rek ah neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yëpp dafa wala neuf mille neuf cent ya quatre-vingt-dix-neuf yëpp sawara la ñuy dem kenn cay dem àjjana te xadis ba mi ngi saxi muslim mi ngi saxihayn junni nit yoo wàññi kenn cay dem àjjana ña ca des juróom-ñeent téeméer yaag juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent yëpp sawara la ñuy jëm yent yàlla mu ni loola mooy waral keroog yi nga gis ngone su tuuti daal di bee jaaw ndax tiit ak jàq saxaaba yi jaaxle ci loolu yent yàlla mu ni moo ne li ëpp ci ñay génn ci yajuuj ak majuuj la ñuy doon ndax ñoom seen bariwaay yegg na ci ah buñ jëlee ci ñoom juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent buñ ñëwee jël ci yéen benn kon ñooñu bari nañ lool bari nañ lool lool ba jéggi dayoo sax loolu mënee su ko sax imaginer di ko xalaat te xadis boobu xadis la bu wér Yaajuuj ak Maajuuj kon ay mbindeef lañ comme ñun waaye ni ñuy dundee ak ñoom nañuy dundee kon bokkul ñoo nga woon ca ginnaaw sadd ba comme ni ma la ko waxee yàqkat lañ ci kaw suuf nag li gën a wér mooy ay mbindeef lañ ay yàqkat lañ te it li ëpp ci ñuy dugg safara ci ñoom lay doon comme nii ma la ko waxee waaye nekkuñ ay malaaka nekkuñ ay jinne ci doomi aadama yi lañu bokk dañoo am ndey am baay melokaan waleen yàlla bindee nag ak li mu bindee xëy na ak nan mel ak fa ñuy dund loolu day def jeexintal mi ngi mel ni misaal ma la jox kare ca digg àll ba gott ba nga xam ni xamul dara ci dëkk bi ak ki ne fii léegi Zulqarnayni ñëw na baare baaraas boobu saa bu ñu demee ba àddina yi waaj a tukki comme ni ma la ko waxee nga xam ni Mahdi ñëw na Isa ñëw na ah jamono jooju kat Isa fi la koy fekk Yajuuj ak Majuuj bu ñu reyee Masiix Dajjaal ba noppi sunu borom day wax Isa ni ko ah pare ngeen ci bii de waaye des na beneen bu gën a rëy mu ne ko ban la mu ne ko am na samay jaam yoo xam ni dina leen yabal léegi tey ñu génn te kenn du leen mën a dékku Isa ni ko sunu borom lu ciy pexe mu ne xanaa ngeen dem ci ab tuur muy jabal tuur fa sunu borom wax yowoon Moussa alayhi salaam wala boog ñu dugg ci ay tata tata yi ne foofu ay tata xam ngeen tata xam nu ko wolof di mën a leerale ba mu gën a leer maanaam misaal ma ko mën a jox rek xëy na ñu dëkk ci taax yi mën nañ ko bañ a xam ndax bariwut fu muy am lu dul ñuy xeex waaye ab néeg la ab bâtiment lay doon boo xam ni xeer lay doon day mel ne lu yàq ci biir am bunt am fenêtre am lépp waaye ku ca xës ba dugg ba tëj ko ku dikk sa gannaaw lu mu am am doole du ko mën a tijji taxaw dong di xaar nga génn lay man moo tax ngay dégg ñu naan saxaaba yi am na ñooñu doon xareel ñooñu tëju ci biir tato i six mois ñu taxaw ci biti di leen xaar parce que doo mën a dugg yéen a ngi fàttali ko albarra ibni malik keroog ba yéefar yi duggee ci benn tata kenn mënu leen a tijji mu génn benn technique mu ni am na porox doll su ma xam ci kaw tata bi boo xam ne bu ngeen ma tungoomee ma tijji ko subhanallah mbokk yi xam nga lii nag mooy jaay sa bakkan dëgg mille personnes nekk ci benn biir tata yow benn nit ngay da nga fay dugg ngëm yàlla gis nga bis bu la xësee jafal ku bëgg a boyal mën a jël ci yow ñu tungoom ko mu yéeg bi mu yéegee di viser ba xool bunt bi ba xam ne bunt baa nga nële gis nga bi muy plongé di tëb dafa daw katafu bunt bi gis nga balaa moo tijji bunt bi ndigg li mokk na rumbax ak xeeñ waaye nag fexe na ba tijji ko nag moom maanaam dafa tëbee fële rek ci digg bi rek koji fenêtre bi bi mu ko kojee rek langaamu ci tijji ko bi mu koy tijji dóor nañ ko ba ndigg laa ngi mokk waaye lan bëgg am na ko ñoom xooluñu dóor nañ ma li mu xool mooy lan bëgg am nañ ko mu jeex moo tax yent yàlla di misaal zikr ni mu amee solo mu ne mi ngi mel ni benn waay bu ab noonam di dàq mu daw ba dugg ci biir tata mucc nga su ko defee Aysa daal di wax jaami yàlla yi nan ñëw ñu dugg ci biir tata bi gis nga bu ñu fa duggee fekk ca démb sa Yajuuj ak Majuuj xeet woowu nee nañ nañ wàcc ba suba insha allah bañ ñëwaatee fekk affaire bi des tuuti ñu ñëw laal rek mu faq bu ñu génnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ni ci xadis boo xam ne Nawaas ibni Samaan moo ko solo te mi ngi ci Saxiix Muslim te xadis la bu wér mu ni yonent yàlla mee garab gu ñu romb dañ koy lekk miir bu ñu romb dañ koy lekk géej gu ñu romb dañ koy naan dex gu ñu romb dañ koy naan amul lu ñuy bàyyi maanaam daal ñoom lu ñu romb du romb dara kuy romb géej di ko naan di romb dex di ko naan di romb ay miir di ko lekk ak i garab kooku di nga romb nit di ko fi bàyyi déedéet yent yàlla mi ne ñi njëkk a génn dañuy romb benn dex naan ko ñi mujjee génn daal di ñëw ba xool gis ni fii dex la woon ñu ni fii de xanaa dex mosoon na fee am fekk am li gars yi naan nañ ko ba dem seen yoon parce que dañoo bari yent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñuy wër ci kaw suuf si lu ñu romb rek faagaayal ku ñu fekk dañ lay yàq yàqaati moom kenn du des ci kaw suuf si mbokk yi sunu borom innahu ala kulli shay'in qadir te ñooñu ay mbindeefam lañ rek te yàlla laa yujizuhu shay'un fi l ard wala fi sama dara tëwu ko loolu moom rek la neex foofa danañ fa xiif xiifaay boo xam ne ci biir tata bi yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nag nag dana dem bay jar milliard wenn nag di jar milliard parce que nit ñaa ngi fa am mënuñoo génn ya juuj ak ma juuj ak romb ci kaw suuf di lekk garab yi di lekk naan dex yi di mabate lu ñu romb yàq rek ñoom yàq mooy seen métier xam ngeen li gars yi waxoon dëgg la inna mufsiduna fil ard ñoom yàq leen tax a jóg su ko defee noonu la ñuy continuer ci kaw suuf si gars yi ne ci biir tata bi sonn fa lool nag bu mu soobee sunu borom sunu borom daal di ñu xëy benn bis gars yi daal ni waaw yéen ñun ñu ngi bëgg a yàgg ci tata bi te benn waaye mu génn jéem a génn sacrifice yow moom na dee waaye nañu jox information benn waaye mu jug mu ni man pare naa pour dee yi pare naa pour dee mooy kaay génn génn te tam mooy yaa joxe maa joxe lekk la nga jeex waaye nag na nga joxe information maanaam boo génnee su fekkee lekk nañ la mooy ñun bu ñu génnati su fekkee lekkuñ la boo yuuxoo nga ni jeex na ñun ñu wàcc kon waa ji mu sacrifice boppam préparé wu pour dem àllaaxira loolu ngëm yàlla dëgg la ndax alaxira laa jëm maa ngi nii alaxira laa jëm loolu loolu mbokk yi diis na de xam naa ne de ku néewi yiw comme ñun bari bàkkaar comme ñun doo ko ñeme waa ji cëppeelu génn rek fekk ci diggante bi borom soo tala yabal na aw aw sax sax woo xam ni dafay ñëw ba tolloog loosu kenn ci ñoom rek daal di bëtt fii dugg mu ñuy tuddee naxaf naxaf lañ koy tuddee bu duggee fii rek commencé nag di lekk ngay lekk ñuy dee noonu la ya juuj ak ma juuja def ba dee ba jeex tàkk sax wu ñëw rek day dugg fii rek jam fenn rek commencé di lekk waa ji bi mu cëppeeloo daal di yuuxu bi mu yuuxoo wan gaa yi ni leen man def kéemtaan laa fekk ci kaw suuf ñëpp dee nañ ñu daal di tijji tata bi génn waaye bi ñu tijjee beneen problème la ñuy amaat mooy midd mi day tax kenn du mën a noyyi ci kaw suuf amul ñaari jéego benn jéego ñaari jéego yooyu jéego lu dul ñu ngi fees dell kaw suuf Aïssa daal di ñaan sunu borom subhanahu wa taala sunu borom. yabal ay picc yuy bàyyi ko ci côté géej gi picc yooyu ñëw rek bu ñu ñëwee rek gis nga lii nag min al umuri al ghaybiyat ci ay mbir yi nga xam ne nu saddiqu bihi muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wallahi mbokk yi yonent bu ñu waxoon lu gën a kéemtaane lii danañ ko gëm parce que xam nañu lu mu wax dëgg la picc yooyu ñoo ñëw rek di yenu di sànni ji ci ginnaaw géej li gën a kéemtaane ñëw na ci benn xadis boo xam ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam salte bi ñuy bàyyi ci kaw suuf ak seen yax yeeg nangam sept ans dinañ ko defaat ci kaw suuf du mën a jeex ndax bari gum bari woon juróom-ñaari at yoo xam ni seen i yax ak seen i nangam nit ñaa ngi ciy taal di jël di sànni di gas di suul ba mu am juróom-ñaari at te du mën a jeex ah yow kaw suuf ni mu yaatoo foo wëlbati ku ñu nga fa tëdd nit picc yi dañ leen di jël yóbbu leen ba noppi te teewut xet baa ngi fi duñ mën a génn ba léegi duñ mën a nooy léegi sunu borom nu muy def day taw ab taw. yent yàlla beneen taw bu dikkee mooy raxas kaw suuf ba mel ni seetu ka zaliqa comme seetu su ko defee nag taw bi daal di wàcc salte bi dem nit ñi daal di génn gis nga jamono jooju bu ñu génnee nag la ca topp nag moom daanaka mooy la ca topp mooy wanu fexe fa sóori fa jamaanaahum jamaan su ko defee ca sunu borom nag daal di def yi nga xam ne mooy mandarga yi jeexoon ci mujjug jamono yi ci desoon sunu borom daal di yabal benn ngelaw bu jóge ci côté penku bi wala côté sowu bi bopp ngelaw loolu su ñëwee ku gëm yàlla ku mu xeeñ rek mooy sa tàgge ku gëm yàlla ku mu xeeñ rek moom da ngay daal di wuy ji àllaaxira yow léegi nag ñim fii bàyyi mooy ñi gën a bon ci kaw suuf ñooñ duñ dee li tax duñu dee mooy ñoom la fi mu jug jamono yi fekk moo tax yent yàlla bi nee na laa taqumu saa illa ala shirari l xalq àddina di tukki lu dul ci ñi gën a bon ci kaw suuf lay tukki ci seen kaw loolu amaan na xëy na mooy tënk bi bind biir ñëw dinañ gën a continuer ci loolu ba tombek saar bi jeex wa ala kulli am na ñuy wax ne yaa juuja ak ma ma juuja ñii dañoo njool comme comme comme numutati ta garabu tàndarma ñii dañoo gàtt ba da ngay gis koo xamante ni dafa tuutee tuuti ba ñaari nopp la ko yàlla dénk nopp boo xam ne bay bii da koy lal bii da koy da koy sàngoo ay wax yoo xamante ni daanaka ay xusaar amul amul solo te am solo mooy liñ ci xam te mu gën a dolli suñu gëm wallahi dañuy dolli gëm nag am na yoo xam ne boo ko nettalee ba noppi suñu borom li wax wa ma zaadakum illa imanan wa taslima daf leen a gën a yokkaat ngëm gën leen a yokkaat jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala waaye gën a taxaat nga xam ne suñu borom nag ku am doole la ku am kàttan la xoolal lim jox Zulqarnayn xoolal lim jox Xadar xoolal lim jox Yaajuuj ak Maajuuj ila axirihi gis nga yëpp ay mbir la yoo xamante ni moo tax suuratul kahfi ci saar yi dolli ngëm yàlla rawatina ca al iman bil ghayb ci la bokk kon nu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bu nekkee leer na aywa naam waaleykum salaam waaw gisuma benn riwaaya buy saxal ni am nañ ci ñoom ay jullit te fii ñuy mujjee la muy wane moom mooy ñu baax amuñ ca ndax fasaad benn fasaad lañ leen melalee ñaareel mooy yonent bi ci li mu wax mooy ca ñoom la ñuy jël ñay dugg safara ñëpp fa la ñuy féete maanaam ñoom duñ bokk ci mbooloo lu dul dañ koy yokk te duggum safara mu métti mi ñuy dégg ci ñoom lay doon te amul benn riwaaya boo xamante ni wala daifan sax bu ma gis bu wér ne am nañu ay jullit la man mooy ay mbindeef lañu suñu borom mbindeef noonu ndax yónni nañ ci ñoom ab yonent déedéet hadis ñëw na nag buy wane ne yonent saa sallam keroog bi ko yàlla rañaan loo daf leen a dem ba ci Yaajuuj ak waa Maajuuj ñoom waar leen ñu lànk waaye hadis boobu dafa daif wérut wallahu alam bu nekkee leer na kon wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain